tës jolof chicken ginaar yu saf te neex moo leen di may seen émission tës asalaamualeykum waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu tës wi waaw euh, mar day taali mais Tuuba la xewe euh, gone gi mhm. nee na dafa am koo xam ne daf koo jël def ko fowukaay objet sexuel déglul de bu baax di yëgg ci kawam subaak ngoon bu dégg ba cëg te moom da dib góor mu ne oh! bu góor oh oh xale la la ilaha illallah waxambaane wa ko koy def nag da ko koy def di ko ko def di ko ko def bu mujj ga euh, maanaam ngeen baal ma waaye gannaaw ga sax dafa mujj yàqu ah dana yàqu kay gannaaw ga daa mujj yàqu day yàqu kay gannaaw ga daal daa mujj yàqu ba bu yëgee boppam sax alaaj fi mu bu demee toog ni ah moom daal mënul mënul toog noonu rek daal di di gaanuwaay noonu rek noonu déedéet déedéet maanaam daal bu bu bu tuur dugub daal waaw bu bu toogee daal sax léegi gannaaw ga daal yàqoo yàqu ba ba ba du du du du du ko mën a defal boobu moom daal il faut mu jëli loxoom ngeen baal ma maar di di di di di boppam di ko génne. la ilaha illallah. waaw ndax ndax waaw waaw waxtu waaw moom daal gannaaw ga daal day day tooy rek day tooy rek yàqu yàqu yàqu. doy waar laa lay expliqué allahu akbar doy waar doy waar lay expliqué. waaw oh, ana ana ana kii ka def alaaji. Ah. jàpp nañu. Ah, wantulaay ci suba ni ma gisoon muy def muy déglu affaire bi ci laa ne nit ñi gaaw leen ngeen dékki. non attends waaw ah, moom daal bu bu demee bu bu bu bu duggee ci euh, euh, toilette yi di duus yi daal euh, ba toog daal war a war a. non boppam di di di di tuur dugub. maanaam di di dem euh, duus ak yooyu waaw moom daal mbir mi daal du du dugub ji du wàcc noonu rek moom mënatu ko boppam léegi il faut mu jël loxo yi daal di di dimbali boppam. waaw mais attends ana ana ka def. dañoo nëpp nëppal. moom ñaata at la am. mag la léegi. ah non non garaaw laa lay expliqué. aussi lu garaaw. doy waar. mënut a ñu ko bàyyi noonu. muy toog muy génne ndox ndox mi di am xet gu bon. ok dafa gaañu. waaw waaw. njët gu bon de fi mu ne nii. nee dafa dem bu bul day génn ci ginnaaw. sama ndey. ay ay mëntu lay bu ci yegg. kon nañ ko opéré. loolu la bëgg. ay man mi jaar na ma di. lépp. nëpp nëppal fi am moom. nëpp nëppal moom fi am moom. nëpp nëppal du fi am de. waaye waaje de bu ñu ko xamee. Hmm. ñun waa tës ñoo koy porté ji plainte. Hmm. ñu déglu xale bi wala. la ilaha ñu déglu xale bi. ana ñu déglu ba kaay yi si de dama benn waay laa àndal di ma xale da nekk xale waaye bi ñu ànd seet am lay doon. sareetu mbaam sareetu mbaam. te boobu maa ngi si daara ji waaye dafa doon daw daw bi ma doon ànd ak waaye ñoo bokk benn koñ benn koñ bi la léegi bu ñu dee biir mu dab yàpp dama tëdd. dina tëddee. waaw du see moo ne wax benn xaytaam. mu ne bi mu nga xam ne. ay juróomi at ak yooyu la ay juróom ñaata at waaw waaye daal bi ma nee si yàgg wax suñu ak suñu ak. benn xaritam. benn xaritam. xaritam da da daay waxaat. ne mu may wër jënd góor ñu daje mbaaxu bi da xam ba ma daan si dugal ma de damaa yan ba mu aay mu dugal tabax daf ma dafa ànd ko. nu mu la daan def da daan summi wala. daan mu summi def ma ko. lu may mu si yàgg mu dem ba yàgg sotti ndox lu xonq lu yàgg mu demee soo duy demee nag ginnaaw ne def gom. bu daan wax. daan boo ko boo ko bu njëkkee njëkk dina boo daa rey. moo baax boo ñu ñu xam nga ko mi ma ko noonu xam naa xam naa baax na si laa dem bu xam ne nag boo boo si jugul dina bay loxo si laa ne wax leen wax. mu dëkk Bamba kër diw. moo moo moo nangam. moo doon sëy léegi nag ñu ànd ak sama baay bu ndaw ak sama baay ñu dem fa wax wax léegi ñu ci yóbbu ma hôpital bu ko daan def yow daawoo ko ko moom rek moo la koy def. moom moo daan ko def. mais yow daawoo ko ko def. daaw moo ko def léegi bu ma demee ba sama moom dañ leen. da dafa dafa doon am da dafa dafa mu wax waxu leen dëgg bi njëkk bi njëkk bi sama waaw da dañ leen dafa demoon daara yéeg si garab biir man dama lonk xanaa affaire xanaa yoon wi wér loolu génn waaye diw noonu. dama see sëy bi ma see du du dana ma du yàgg ma ëpp may loxo te xale laa dama naa sama taawu papa ak sama yaay te dina dem ba. ñaata yoon loolu daal see par jour. du gàll mun ma kaa wàññi. loolu ko daan def lu bëri. waaw léegi nag man damaa wax ne kii nag moom si yàq la ma naa def moom si laa gis sama bopp. bëgg na bëgg na si nit ñi bëgg a toog nit ñi bëgg yor genn xet bi foo toog xet gi di gilli genn xet day xeeñ te surtout ndox di xeeñ yoon may dox ma si mi xeeñ waaye sax damay dem duus sama loxo bi si ginnaaw la koy dugal suuf suuf di xëcc affaire bi pour muy ñëw waaw bu bu dul loolu damay sonal te wala mu sotti boppam dafa sotti boppam si tuuti la koy sotti kon nag lu mu ne mu jaam mu ne xaaral lii ne ma jug sama bopp faju li du war na rek loolu moo samay tànk bëggul foo dund ak jëm Serigne Touba yàlla na yàlla taxawal taxawaay bi si bakk borom Touba waaw incha allah wasalaam léegi euh, bi nga ko waxee sa sa papa ak sa yaay ñoom lan lañ la wax bi ma ko wax sama papa sama yaay dañ ma wax kenn dafa dëkk ndóo di pëlee nga nag rajo rajo tundóo di dem naa si waaye njëkk waaye bu ñu métti moom wax na ma dana ma demal Mbàkke ñu Mbàkke yooyu di war dinañ ko jàllale mu ko baax dinaa ko dem. kon daal yow li dal nii maanaam kooku doon la tëddee moom moo la ko teg. moom ko teg. loolu daal moom la. ñaata at la la ko def. du du mu du at. waaye daa ngi si daa ngi si benn at mi rek la. waaye bu ñu ma na ma dool nag c'est-à-dire mu du ay xanaa weer ko waxee mu du ñaari weer ñoom ñu duxuwaat. ba daat waaye ñun duxu nañ ba daat. waaye na benn mbokk moo ne mbokk moo yor naa numéro am. mu sama mu ngi sama sama mu ngi ko kër. bi nga jëkkee dem. ñu koy euh, da nga may tëddee te loolu neexum moom lan la. la wax. man waxuma ko du dox dama déglu du neexuma waaye damaa xam ne bu bu ma waxee doon rek bu ma bu ma eh, eh, inventé bu ma fa egg ak moom maa doon décidé est-ce que li ma ko waxee baa du baa du ma dee ak moom bu reyam fii. wala xalaat yeneen xalaat yoo xam ne tey loolu lépp di si sama bakkan waaye damaa dem si yaa ngi nii naa ko bu may dee dee si xam xam ne loolu la ma yàlla war fa ma yàlla war a rey loolu daal la woon. Euh, Soumer dañu rek ak waa euh, façon tëddi na daa daa jël daa ñëw suñu soxna bi ji fii dama ginnaaw. kon sama dama ñaari temps ñaari dama ñaari waaw ba ah, ma du ma see. bu noo daa tëb miir. waaye da ngay tëb da ngay tëb di yàgg wax. ma ma ba mu génn woon mu ngi yàgg mën na génn jaan moom jaan mi jaan na leen. waaw bu fekkee ni mu ngi lay def loolu tey waxoo ko day mel da nga cee da nga cee àndoon moom. ànd na seeg moom sax waaye li boo ko xale. comme mooy yenn yi mooy loolu. fekk ni yaa ngi di def di di di boon maa si daara ji. donc maa ngi doon daw. ndax jàng ngi jàng ñu duur. bi ma doon may daw ci laa dem affaire bi éclaté sama. maa ngi ci mbedd mi. Euh, dem foofu di ko fekk. dem ko dem. isa damay nekk ko dem isa àndamoon si séeréer bi dem. ñaar benn am la. léegi mu dàq ma jàmm ja dugal temps bi ci guddi gi boo guddi na mais daal guddi gi dama ko dox ma min ay minu yaay daal minu fi naa fi ak benn lool wàll leen lu tax nga daan def loolu yow dara nit la fekk ci mbedd mi dara dox daan dox ma gëbaaj laa dem mosoo gëbaaj suñ ko soleegul woon waaye nag loolu la yàlla dogal loolu neex loolu yàlla. te lu may jël lépp teg ko si loxo suñu léegi ni la doon def lu ban jafe-jafe la la indil fi mu ne nii. bi bi metti sama di gën a sotti du sotti ndox. loolu daal di di ma dikkal noom day xeeñ. bu dee xeeñ day xeeñ. bu xe bu xeeñee nit ñi nit ñi sax xeeñ waaye. boo jugee ayoo ñam. xam nga man damay bàyyi ba ñëpp jug ba def woon. bu dul loolu rek dama bañ compréhension waaye nag man moom. loolu loo bokkul ci jàpp bu ma siiwalal. moom mboggum julli moon mboggum. waaw faj ko quoi waaw mboggum taalibe ak mboggum si waa ko si Abdoulaye Mbacke yi bàyyi mu kenn. xaw ma ne yaa ngi woote yoonu muur nga rek waaye waa taalibe si Abdoulaye Mbacke nga rek. maa ngi lay ñaax sa sa dugal sa loxo te si feeñ si feeñ. ci mbir mi. ñu jàppale ma soñ ma yow da nga ci bëgg a génn wala génn nga ci fi ne ànd saytu leen saytu na moom defatu la ko defatu ma ko dootu mu ngi yéen ak léegi léegi moom ñeenti at waxuma na ko sax xanaa mais da laa topp ni ba léegi la feebar waaw ba indi ma feebar waxumul waaye nag ku ci ma ñàkk ba ma faj ba wér képp ku ci feeñ loolu tàmbali yal na seen salim yàgg teg lu xool si kattan si borom wasalaamaaleykum rahmatulah bu lay génn lu xonk waaye bu ma ko day mel ne

ma dem jënd ko. liñ la wax yow liñ la wax foofu duñ ko xoolee. duñ ko xoolee boobu ñu dund naa dem ba daal bu ñu doon daal di ko wax sama ñoom ñoo ñoo ko wax. ñoo ñoo doon wax waxuma. ñu doon moom ñun bu. yow bul wax. waaw dañoo waxoon daal pour nga nëbb ko. pour sëy bi la kooku doon def. waaw dañu ne ne wàllu dëkkaloo dëkk ak foofu su réewul. léegi mën naa ne comme ñoom ñoom ñoo ne nii ba ñu nii naa wax. léegi lan moo la indi. ba naqari la ba tey nga ñëw fii di ko jooytu fii. man li ma metti mooy sama filet bi nekk si man su nekk sama taw yaay bëgg ma sama lu ko metti bëgguma lu ko lu ko naqari bëgg ñaan yàlla mekk ma maa ngi tekki seen lil te di ma dégg nit ñi lu bari lu wax dana dana ni rey ndox bari moom sotti bu yàgg di jeex dana dee te moom loolu bëgg nag bu ma dundal te yàlla dax ak yëm Sëriñ Tuubaa fi ne looy dund looy dund fi nekk damay dem ba yàgg sax mën na ko xaw am yaram jékki na reet am yooyu mën damay ngacc yi damay yaram ni ma nga jeet nekk fi ne boo xam ne daal a na moom man moom lépp nga ko jëlee ci nga doon seet waaw ñeneen daal aw daal ñaan xamul daal dagg si ñaan yëkk loolu day dagg ñaan noonu bi ñaan émérique la fi ne nag ko ne daal di nga sama kàddu te mën maa faj ko góor góor la waaw ki la doon def yi saay saay góor la waaw waaye góor woon mën nga maa faj mën nga mën a dumbali te yàlla tax ak jëm Serigne ma ko te yàlla tax loolu rek mooy wax ji wasalaamaaleykum wa rahmatullah Euh, alaaji ah te su tey bi day xanaa dañuy enseigner rek tey moom kenn du leen ndékki leen ndékki leen waaye daal en tout cas doy na waar waaw kii daal nee na doomam la ñu tuumaal viol siif waaw ne daa yegg ci genn gone goo xam ne ñeenti at la am te moom ki ñu tuumaal fukki at ak juróom ans la am caabi ko féete ginnaaw. tës bi ñëwagul ba léegi hmm. la ca gën a doy waar nag. Hmm. mooy bañ ko tëjee ak léegi toll na ci at ak juróom-benn weer. un an six mois alaaji te ba léegi ni le atteeguñu ko. bi ñu tëjee xale boobu am seize ans. seize ans ba léegi kon xale bi kon léegi am na fa kon dix-sept ans six mois. un an six mois atteeguñu ko. li gën garaawati. Hmm. xale bu jigéen bi ñu wax ne de lu góoril da ko doon yëkkataan yóbbu nañ ko Gaspard kamara docteur yi xool ko xamle carrément ne kii dara dalu ko ah. yegg ci kawam nga amul léegi nag yaayu xale bi jaaxle na waaw ah liñ lay tuumaal dañ naan nañ leen dem bërëb nangam xool yi ba xam lii am na wala amul ñu dem fa waa kër docteur ne lii amul te teewul wala am na wala am na waaw ñu ne amul na sa doom ji nekk ci kaso bi at ak juróom benn weer waaw te lépp a ngi jollee rek ci bàyyi ko ne giñ ne dañ koo siif nee nañ doon doxaan yaayu xale bu góor bi ñu téye mu bañ te yaayu xale bu góor bi tamit yaa xeeti ma laa borom jëkkër la ne ci buum ne ci buum ba pare ne ci biir kër gi tamit ñoom ñëpp ay locataire la ndaw si nee na waa ji da ko doon doxaan mu lànk xam naa mu ne ko kon naa la yàq. daa am jëkkër nekk ak doomam bu góor. waa ji di ko ndaw si bañ. ak jëkkër bu am jëkkër. waaw ci biir kër gi. ëmb ba diis ak doomam ah. bu jabar ji mënul dara sax moom ndaw si moo koy dimbali. comme doxaan mi sottiwul nag. mu ni doom ji di jeex na ma. tuumaal doomam nekk lu doy waar nag mais Chumère. Euh, euh, wa kaay jox ñu ndaw si. sama doom dañ ko téye ndax dafa am sama benn dëkkandoo bu ko accusé viol kooku ñoo dëkkoon. yàgg nañ fa léegi ñoo am fa ñaar fukki at ñoo dëkk foofu bi muy takk jabar yépp sama loxo la daan teg mais xale yi dañ doon jote xam nga rek affaire xale dañ doon jote di xuloo di xeex léegi boobu day màndi su màndee day wax doomam yi nañ jooy sama doom yi ndax ñoo gën a nekk xale seen papa du wax dara kooku bu xëyee rek dem na bu fekkee kee di ko tooñ sa day wax bàyyil bàyyil parce que moom amul problème dafa sedd léegi mu jékki-jékki rek commencé di indi problème sama diggante ak moom léegi bu mu ñëwee di ma wax ay affaire kii nii ma ne ko man am jëkkër yooyu sekkuma ko ak yow mu dama dem ba xale léegi commencé nañoo màgg léegi pour ma nekk nañu benn daal ba léegi su amee xew dama ci taxaw bu amee lu mu munta am rek man maay taxaw jàppale ko ba si yàgg rek jabar ji mu ngi nekk jigéenu wérul ëmb ba diis benn jour mu ñëw di ma laaj ndax yëg nañ ne dañoo voté léegi comme ça bu ñu waxee nit dafa violé dañuy dañuy sonal kooku ma ne ko ah loolu de man yëgu ma ko après sama jëkkër ne man loolu yëgu naa yëg naa ko parce que damay déglu journal à chaque fois léegi mu ñëw lendi ma dem dañoo amoon xew jam ñaajo ma dem jam ñaajo ñibbisi jaar marché noonu ndugg ñëw togg ndax damay jaay reer ma nekk ci togg yooyu mu ngi ñëw fekk ma ma toog ñuy waxtaan di kaf di ba si yàgg ma gis jëkkër ji si boppam mm-hmm. ak jabar ji yépp ba si yàgg ma gis ñoom ñaan ñiy jaabante di dem di ñëw ma ne ndaw si lan moo xew te yaa ngi dem rek te taalagoo añ mu ne ma ah sama biir bi day metti dem naa hôpital léegi ñu ne ma naa bàyyi ba si kanam ma demaat ma ne ko tey ngaa bàyyi kon ma gunge la ma fay gaz bi ndax reer laay jaay mun naa ko àggale ngoon mu ne ma déedéet soxlawul bàyyi rek kon ki école la su ma demee mun naa débrouiller ci français ñu waxtaan loolu ndax dégguma olof ma ne ko waa léegi léegi demal kon ko yor nga sama numéro lu ci mënta nekk woo ma nga wax ma mu ne ma waa amul problème doomam bi mu ngi toog ci pat sambur bi kon ko yaay ji dafa diis man maa jóg dem laab xale bi tuuri pat bi ñëwaat continuer sama liggéey ndekete loolu yépp jël nañ sama doom bi depuis ci suba yóbbu nañ ko police yëguma ci dara sama doom bi ma jur yóbbu nañ ko police yëguma ci dara ñu ne dafa violé doomam bu jigéen doomam bu jigéen bi toogoon ci pat sambur bi ba ma laab ko sama téléphone bi dafa toj jour boobu lu ñu vid def vidéo ci sama kaw lal bi moom ak sama doom yi ndax yor naa moromam yépp sama téléphone boobu dafa toj dama kaa yóbbu pour réparer ko dañoo jël sama téléphone di filmer di foo si kawlal bi jour boobu mu wax def sama doom bi dafa violé doomam bi léegi mu daal dem. sa doom bi ñaata at la am. 16 la am fukki at ak juróom-benn la am. ak juróom la am xale bi ñeenti at la am. Mm-hmm. léegi mu da ma toog foofu ba ngoon ñoom ñu ngi jaabante di dem di ñëw ndekete yóbbu nañ xale bi ba fi muy liggéeyee nag kooku daal di ñëw ngoon di ma laaj affaire bi nan la demee ma ne ko ban affaire ma ne ma sa problème doom bi. man ko sama doom bi lan la def mbaa dafa yàq fi ngeen di liggéey ndax ay vitre la ñuy liggéey mooy soudure métallique yooyu man ko mbaa dafa yàq foofu dara mu ne ma déedéet yëgoon ne sa dëkkandoo bi nee na dafa viole doomam parce que njëkk bi bëgguma ko woon wax ma ne ko danga ma koy wax de parce que ni nga commencé nii am na lu xew mu ne ma sa dëkkandoo bi nee na kii dafa violé doomam boo am ñeenti at ma daal di génn jël xale bi tee ko ci loxo ma indil ko waa ji ma ne ko xale baa ngi nii kii moo fi nekk sama dëkkandoo kii la am kii ci des mag la mu ne déedéet kii kay kenn kenn laalu ko ma ne ko kii de moo fi nekk mu ne ma kon demal aslen sa doom baa ngi foofu ma daal di dem police aslen ma fekke ko foofu xam nga rek yaay ak doom mënatuma kaa si porte boobu ba léegi nag maa ngi daw dugg naa fu ne génn naa fu loolu ñaata weer lijjante naa am na at ak juróom-benn weer. après ma toog léegi sama jëkkër mu ne ma loolu jaru ko jàppal si yàlla nga toog di muñ. d' accord léegi yow xale bi bi nga demee ci police bi nga fekk foofu nga fekk foofu nga fekk ko fa lan nga wax policier yi. léegi man dama ñëw gis ko foofu ma may jooy. policier yi suñu maa laaj kii ndax yi ak jur wala loo ko defal mosuñu ma kaa laaj ba léegi. ñu may nax ñu ne ba léegi demal après dinañ ko indiwaat ma dem ñu jël ko yóbbu ko central ñu def ko retour de parc nekkal foofu nekk fa ba yàgg après ñu jël ko yóbbu ko formé yéeguma ci dara man maa ñëw daal sama jëkkër dafa may nëbb ndax bëggul maa xam def naa ba avocat ba léegi dara sottiwul dugg nañ fu ne lu nekk def naa ko dara sottiwul xale baa ngi formé mënuma fexe ba sama doom bi génn. xale bi àttan nañ ko. ba léegi ba léegi taxawul mandat dépôt lañ ko def. ba léegi kenn mësu ko laaj lan la ndax ñoom dem nañu gës par camara nee nañu xale bi dara jotu ko yóbbu nañ fa kayit ñu ne kii dara jotu ko ndawam mu ngi ci moom ba léegi. ba ñu waxee loolu ma ne ko léegi sama doom léegi la génn boobu ba tey dara dara dara dara sotti wu ci. ñoom policiers yi ñoo ñëwoon foofu sa kër jël si sa doom bi fi muy liggéeyee. man gisuma leen sax damaa dégg nit ñi di ma wax ne oto la ñu gaare fi muy liggéeyee yóbbu ko police askan. ana sa dëkkandoo bi boobu. déggoo li ma la wax ñëw na fekk si ma fi may toggee ñuy kaf di rëyee. ba léegi moom waxu dara. yàlla xam na ko. musuma kaa ŋaangal. léegi yéen a ngi dëkk yéen ñaar ba léegi. ñu ngi dëkk ba léegi léegi man woo naa samay mbokk ñoom ñëpp ñu ñëw ñu ne ma léegi su fekkente ne sama doom bi def na ko wala def ko yépp léegi damaa bëgg moom mu baal ma ndax mu retiré plainte bi sama doom bi génn. kon dafa defoon plainte kon. def na léegi xaw ma kenn musuma indil plainte musuma teg plainte euh, sama bët léegi mu ne ma su fekkente ne kii mu ne paa yi de ay paa laa indi woon ay imaam ndax loolu dañ ma kaa waxoon sax pour ma ma dem ñaan mu may ma ma ne ko man duma ñaan koo xamante ne defu ma dara defu ma ko dara ma koy ñaan ñu ne ma ñaan ñaana rek sa doom moo nekk prison léegi mu daal di ñëw mu ne paa yooyu su ma mënoon rendi xale bi dama koy rendi mais dama xam ne kii su ma ko rendee rek police dañ may yóbbu dootuma mun a àggale li may yar samay doom su du woon loolu xale bi dama koy rendi yàgg naa kaa bëgg a rendi ñooñu foofu la ñu jógee ku nekk ñibbi ñu ne man dootuma àggale wax boobu kuy rendi nit moom yow waxoo su ma ragalul woon yàlla dangaa ne su su nekkul woon police dañ day gis mu ne ñoom ñu ne doo te moom dafay màndi day màndi mais instant yi moom wàññi na ndax li suñuy xuloo foofu dama koy wax man duma wax ak màndikat léegi xam naa looloo ko metti mu ngi wàññi màndi bi. que dafa ñëwoon ci yow pour bëgg laa doxaan ak waaw ñëw na foofu fekk ma man nag moom kese ak yàlla mu ñëw fekk ma ma sëgg di raxas mu taxaw mu ngi summee xóotu sarbet bi teg si sangukaayam bi pour dem sangu mu wooma ba ma wuy ko mu ne ma man daal damaa xool xool waaye kal naa sama bopp ba sonn mais mënatumaa téye sama bopp rek bëgg génn ak yow moo tax man ma ma ma tudd yàlla rek ma jóg ma ne ko man ak yow benn néeg la ñu dëkk ndax suñu néeg bi benn néeg séparé ñu palanteer bi si sa buntu néeg lay wéeru ma ne ko loolu ëpp naa def yow tamit sama mag nga ma daw dem ci sama mag jigéen bi bentale foofu laa toog ba sama jëkkër wàcce ma ñëw expliqué ko kooku ma ne damay dem laaj ko man ak moom dinañ jote ma ne ko loolu jaru ko defuma loolu xam nga ne loolu duma ko def depuis jour boobu nag ba léegi nii la commencé histoire bi histoire bi suñu diggante histoire loolu moo déclenché yéen ñaar loolu moo déclenché suñu problème ñun ñaar ba yegg si fii léegi mun lu ma dara mu mu bëgg kaa jaarale ci doom yi sama mbokk yépp nee nañ ma kii tuxul kii bëggu la ñépp dañoo waxoon man ma génn kër gi ma ne la man duma génn kër gi parce que jaboot fi mu nekkee nii boo amul doole doo mën a boo doo mun am néegu lu waas moom ñaata ñaari jabar la yëpp yow yaa leen dalal. man maa leen dalal foofu su neexoon tey jii sama dëkkandoo yi toog ñu dégg li may wax nii ndax damay wax pour sosal ko wala yàlla mii ma tiim rek moo tax ma koy wax bu mu takkee xale yi indi ko fii ñoom dégguñu olof xamuñu marché bi xamuñu xaalis bi man maa leen di wal loolu yëpp jëndal leen ndab ñuy toggee jëndal leen euh, kii nii ay bool. li fi ñu yekkee maa leen woon ñuy duggee lépp ci marché bi maa leen woon marché bi wan lay xaalis bi lépp ba mu miin gis nga jabaram bii jur xale bi nii mosoon na ko fa dóor boobu dafa nekk en état dóor ko yàq kanam bi xale bi man maa ko jàppale ba mu am doom bu mu amee doom ñaari semaine la doom ji am mu jàpp xale bi dóor ko ba nangu doom ji dëkkandoo yépp a ñëwoon dajaloo ndax ko ba jël xale bi delloo ko yaay ji man maa jël samay ndab loolu sax jaruma ma koy wax ndax yàlla moo taxoon ma def ko ba mu yóbbu xale bi toog nañu cinq ans ñoom ñaar dañoo divorcé xale bu jigéen bi soog a ñëwaat. léegi dans tout yow jabar yi yéen yow ak ñoom yéen a ngi seq jàmm. jotewuñu dara lu dul problème bii. problème bii ñu def nag boo gisee ñu jote na man maa leen bàyyi parce que soo demee di jàppale sa jëkkër muy def yenn yi loolu xam nga nit kooku bëggoo ko loolu moo tax ma bàyyi ma bàyyi jabar yi léegi ñu nekk foofu di histoire chaque jour. chaque jour ba léegi yéen a ngi instant yii nii instant moom jël na jabar yi yóbbu na leen màssa nga la foofu la ñu dëkk léegi mais moom du génn si néeg bi suba ak ngoon mu ngi ci biir néeg bi. mu ngi ci biir kër si biir kër gi ba léegi ñoo dëkk noonu. jëkkër anamu moom mi mu ngi fii day dem seeti xale bi mais kooku comme ndox bu du wax dara man damay wax ba sonn jógal jógal nga wax mais moom du wax dara du wax dara bu xëyee. ñëw su fekkee histoire damay. xale bi bi mu nekkee kasoog léegi ñaata nga ko gis yow man damay dem avant feebar bi nii lañu ñu pour visite bi mais avant dañuy dem di ko seeti su amee luñ koy yóbbul dañuy dem di ko yóbbul samedi ak dimanche dañ koy yóbbul añ. moom ci ban état la nekk. ah mu ngi foofu nee na ma mu ngi si jàmm de ci lu mu wax nee na mu ngi si jàmm waaye xam nga nag kaso moom kaso neexul. Hmm. kaso neexul wax dëgg yàlla. instant yi lan nga bëgg na maa ngi bëgg ku may jàppale ngir yàlla rek te yàlla tax ñu génnal ma sama doom bi ku may dimbali ma am avocat ku may jàppale xeebu ma kenn xeebu ma dara ngir yàlla ak yenente bi ku may dimbali rek sama doom bi génne loolu dong laay ñaan Sénégal. parce que yow xam nga ne liñ koy tuumaal moom deful dara xale bi yóbbu nañ ko gina ñibbi na moom ak yaay ji bu yàgg. avant weeru koor gi la jëkkër ji jël xale bi ak ak ak yaay ji yóbbu na leen gine tey ji bu fekkoon ne yoon la mën nga tëj doomu jàmbur ba pare jël say njaboot delloo leen dëkk ba est-ce que loolu yoon la. yóbbu na leen bu yàgg ñoom nekkatuñu fi jëkkër ji daal moo fi nekk ak beneen jabar ji ñoom ñaar ñoo fi nekk. mais kee yóbbu na ko borom doom ji ñoom ñibbi nañ bu yàgg seen dëkk. Oh, euh, alaaji hmm. sumeer xam naa ne day tës bi day alaaji hmm. sëy daal tas na fi hmm. nit ñi denc relation alaaji sëy tas na fi euh, ba nit ñi diggante bi ratax ba gaa yi naan. waa ji est ce que néew ni day jëlaat booy bi ci suuf. fekk na c'est vrai. te dara ñaaw. waaw. ko defee nag waaye noo nit la safaan yu amee. alaaji léeg léeg ay sëy tas. waaye tas tas yu méttee méttee méttee méttee. moo tax ñu bëree bëri di daw sëyu mbokk. ñu bëri dañ koy daw. nekkul ne dañu bañ seen mbokk de. mais dañ koy daw <clears throat> am na ñoo xam ni dañu yor taxi. Mhm. di ko dawal. Mhm. boo leen doon jox taksi laa la wax ne leen bu ma versé dix mille de ma versé deux mille francs alaaj mhm. duñ ko jël ndax bañ diggante bu yàqu. dëgg la. waaw dëgg la. la. am na xam ni dee moo leen gënal ñu sëy ak seen mbokk. mais wala dañoo bañ seen mbokk yi wala naw la wuñ leen mbokk gu yàqu lañu ñuy bañ. Ah, parce que sëy bu tas nag sens la. ni jëkkër nekk sens jabar nekk sens yàlla rek moomu yàlla rek yéen mooy li nga fi doon wax keroog rek nekkul njàmbaaru kenn nekkul njàmbaaru kenn man sama jabar a gën ci jabar yi sama jëkkër a gën ci jëkkër yi loolu loolu nekkul sa njàmbaarte dégg nga mm-hmm. que liggéeyoo ko yow ci ci ci ci ci ñaar fukki ci fanweeri at yi nga am mm-hmm. koo mës a gis ñu naan bi mu nekkee xale ba tey lii la doon liggéey am jëkkër ju am ju ju am diine am wërsëg mën koo téye yërëm ko foo ma sa gisee ñu ne kii dee jabar gi ndeysaan moom moo ko moom moom moom moom lii la doon ñaan maanaam moo toppatoo ndaw si bi mu nekkee liir ba ni màggee mhm. moo ko liggéey mhm. sens la mhm. waaw bu ko defee nag divorce yi tamit noonu lay nekkee sens léeg-léeg nag nattu am sëy tas yoo xam ne alaaj day metti bii de ci la bokk lii mantulaay indil ma nii mm. ci la bokk 2014. Mhm. la ñu sëyoon seen bébé bi ñetti weer la am. Mhm. déglu de. waaw divorce am. Sénégal lañ nekkoon. waaja dem Côte d'Ivoire woo fa ndaw sax. wow waaw fii lañ doon sëy après ndaw si jóge fi dem fekki ko. Ah, boobu ñu ngi sëy bi muy dem Côte d'Ivoire. waaw ah waaye nag ba mu yéegee Côte d'Ivoire nag. Mhm. bonjour les dégâts. Hmm. nee na ba mu yéegee góor gam fekk Côte d'Ivoire. ak góor gi mu doon sëyal Sénégal comme yàlla ak yàlla yi. ndaw si mooy wax de. wax ku góor ki waxagul de. Mhm. dégg nga loolu. Mhm. léegi nag ci la ko jafe-jafe yi tàmbali. mu jógee Côte d'Ivoire ñibbi si Sénégal wàcc aéroport Léopold Sédar Senghor boobu ñu ngi fii ci Ndakaaru. waaw jëkkër ja ndekete ba muy départ nee na coppet saak ba ba jël caabi kër gi. ba mu ñëwee wër ba sonn. gisu ko kër gi fii. gardien yi ne ko sa musée nee na doo dugg. Mhm. seen waa kër wax jëm kaw jëm suuf doo dugg. léegi ma jël sama yére doo dugg mu dem ca baayam jëkkër ja woo baay ba ne ko fase naa ko baay ba ne ko bindal leetar mu am trace alaaji tasum sëy moo xam ne saaga yaa nga ca biir mën menacé digub kaso ma nga ca biir doom ja mujj nañ koo jël ba jox ko keneen koo xam ne moom ndey ji xamul kooku kan la police tudd nañ ko ca ak gendarmerie ak procureur maanaam sëy bii daal boo bëggee dégg dëgg alaaji. dinañ ci yàlla musal. waaw man daal man daal man daal xamuma. man daal xawuma lii naan waaw man daal. man de laay mi ko fi indi nag. bu dee dana ma tane na ma ci. moo ko waroon a chapeau sax nag. waaw moom moo ko waroon a waxal boppam. ni mu koy waxee nii dama koo mën. ah déedéet comme moom dossier bu ne moo ko fi indi. waaw ah, kay moom ni mu ko mënee nii mënoo ma ko nii. waaw kay dégg nga loolu Simère. <laughs> moom mi ko fi indi. moo ko waroon wax man ma ne pat. waaw waaw. ñu teg ndaw si alaaji. dañ ko teg ñëwal Simère. dama ñëw congé ñëw pour gis sama doom depuis le 5 août man maa ngi fi mais mënuma fexe ba gis sama doom ndax sama ex jëkkër depuis 2017 nii lay dundeek man du ma dégganteeg sama doom téléphone du ma waxanteeg sama doom téléphone bloqué na ma fépp jël sama doom dénk ko ay nit yoo xam ne man ba may jur sama doom ñoom fekkeewuñu xamuñu nan laa juree sama doom xaw ma nan laa dajee sama doom sama ex jëkkër la. ñaata at ngeen sëy. donc maa ngi moom sëy nañu presque une année et quelque. 2017 2000 2014. ba xale bi amee 3 mois. si la ne moom fase na ma. parce que dañoo am problème Côte d'Ivoire man ma wàcc aéroport Léopold Sédar Senghor à minuit ma ñëw ci buntu kër gi ubbi sama saag gisuma sama saag. fan ngeen amee problème. Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire la ñu amee problème. foofu ngeen di sëy yéen Sénégal lañu nekkoon di sëy fii virage mais moom comme que day liggéey. Côte d'Ivoire mu woo ma Sénégal fii ñun ñoo doon liggéey ba ma accouché ba pare mu ne ma da ngay ñëw fekk si ma fii Côte d'Ivoire ñu liggéey ma dem Côte d'Ivoire fekk nit ku changé yaa ngi dégg ma fekk nit ku changé ma ne ko man damay ñibbi ñu am problème man ma jël sama doom 3 mois ma daw si ma ñibbi si Sénégal parce que ki ma xamoon Sénégal ak ki ma fekk Côte d'Ivoire du benn ba ma egsee Sénégal comportement am dafa changé quoi. comportement xeex foofu da doon dóor mbala. déedéet daanu ma woon dóor mais da doon dañ doon xuloo di saaga xale bi di jooy ma xam ne kii la dañ koo laal. xam nga ak may gis ay message ci portable am ma xool nit kii ma xamoon xamatuma ko moo tax ma jël sama doom ma daw génn Côte d'Ivoire ñëw Sénégal ba ma ñëwee daf ma doon tëj daf ma ne na ñëwal ñu liggéey ma ñëw mu mbañ mu may tëj ci kër gi utal ma kuy tee xale bi ba pare mu ne ma toogal ci kër gi ma ne ko waxoo ma woon lii danga ma ne naa ñëw ñu liggéey ma ñëw mu may tëj ma ne ko damay ñibbi donc ba ma egsee ko di Sénégal minuit ubbi sama saag gisuma sama caabi bi ma ne gardien nañ ma ubbil gardien yi ne ma moom nee nee ne moom moo fi woote nee ne boo ñëwee bu la bàyyi nga dugg ci kër gi ma woo frère am ne ko yor nga duubul caabi yi jox ma ko mu ne ma diw mu ne ma sa jëkkër nee bu ñu la jox caabi bi caabi kër gi. boobu fase na wala boobu faseegul. boobu de ma woo sama papa ci saa si mu ne ma ñibbi si si kër gi. ba ma ñibbee si kër gi sama papa woo ko mu ne ko fase na sama papa ne ko bindal lettre mu bañ léegi sama papa ne ko nañu ubbi kër gi ma jël samay yére mu ne du ma teg sama tànk si kër gi mu yóndi jabaru raqam ak doomu. ñu ubbi kër gi génnee samay yére ak lépp loo xam ne man maa ko moom ëmb ko dem yóbbu ko kër papam bañ ko yóbboo kër papam papam wooñu nañu ah man de am naa kersa yére damaa fay ñu fóot ko ndax nuñ ko indee neexuñ ma mais maa ngi lay ñaan nga toog nga déglu ma bul dem tribunal dem justice man xam naa sama doom toogal nga déglu ma dinaa ko arrangé ma ne ko d'accord papam moom ci boppam papam moom ci boppam léegi man ba ma ñibbee ba ma ñibbee suñu ba ñu sama papa ne ma jëlal yére ñu dem naru woon jël yére dama ko naroon ak gedd sama papa ne ma jëlal sa yére ñu dem nga bàyyi ko ak yàlla ma dem toog suñu kër ba ma toogee suñu kër yóndeewul dara yóndeewul couche yóndeewul meew yóndeewul dara pour xale bi man maa doon toppatoo sama doom ba xaw ma ay quelque xaw ma 4 mois après xaw ma 3 mois après si la commencé yóndee xaalis pour xale bi chaque mois 50 000 mais 50 000 yooyu mu doon yóndee doyul woon parce que xale bi da doon feebar di feebar di feebar samay xarit ñoom ñoo ma daan dimbali ci ay ordonnance di jëndal xale bi ordinance lépp lu ma soxla ñu taxaw si mënuma woon liggéey na xale bi nangul kenn donc moom après quelque temps après moom dafa jógee Côte d'Ivoire mu ñëw Sénégal ba mu ñëwee Sénégal mu ne ma day jël xale bi ma ne ko déedéet parce que kii dundaloo ko da nga wax ba ma génnee Côte d'Ivoire dundaloo xale bi da nga toog ba mu neex la papam moo ko ñaan ba mu joxe. boobu xale bi fer na. boobu xale ba mu ñëwee waa ba mu ñëwee fekk xale bi feragul fekk xale bi feragul. mu ne da koy jël. mu ne naa ko jox xale bi mu dem quelques jour ak xale bi ma ne ko déedéet doo yóbbu xale bi. après yàlla def situation changé après da daan jël xale bi di dem ak moom di ñëw ak moom léegi man ba ma toogee Sénégal situation bi métti si man mille am naa yeneen doom yoo xam ne moom juru leen man jël samay ma am am sama benn xarit bu ma may xaalis ma daal di jël sama ñaari valise def ci ay marchandises dem Maroc ba ma eggee Maroc trois jours ma daal di am liggéey liggéey bu baax sa projet bu mag. boobu sa doom bu ndaw bi ñaata at la am. quatre la amoon maa ngi génn Maroc passeport baa ngi nii maa ngi génn Sénégal le 15 octobre 2017 donc xale bi novembre la am. quatre ans le onze novembre lay am quatre ans si laa ko jox xale bi man ma daa di dem léegi man ba ma demee Maroc di liggéey daf ma bloqué whatsapp dama egg Maroc rek ma vocal ko ma ne ko maa ngi Maroc mu bloqué ma whatsapp bloqué bi ma bloqué nag mooy man ba ba may ba may quitté Côte d'Ivoire daf ma ne di torox xam naa mu gis ni toroxuma nag mu bloqué ma si whatsapp bloqué na ma whatsapp de 2017 2019 ma ñëw congé ba ma ñëwee congé ma dem këram mu ubbil ma ma dugg toog ma fekk fa benn jigéen mu ne ma man la magu man la jabaru magu femme bi loolu la ma déclaré ma ne ko ma maa ngi lay sant di la gërëm ci téye bi nga téye xale bi ma ne xale bi kaay ñu dem xale bi bañ moom ku góor ki sama ex jëkkër mu forcé xale bi xale bi bañ man ma ne ah bàyyi ma dem kon ma dem que man maa ngi doon loger man tamit à côté le lendemain ma ñëw secteur heures fekk femme bi di génn ak xale bi ma ne ko bàyyil ma yóbbu ko école mu ne ma noonoo neene bul jël xale bi ma ne ko dangay dem nga ne ci neene day yóbbu xale bi école mu ne ma déedéet doo jël xale bi ma ne ko yow ba may jur sama doom fekkee woo nga ne man du ma jël sama doom ñu xeex fa maag moom mu jël ay bant dóor ma ko taximaan bi jàppale ko ñu dugal xale bi yóbbu ko école man ma dem ut certificat ma dem hôpital ñu constaté sama blessure yi bindal ma certificat médical ma dem porte plainte gendarmerie Wakaam ba ma demee porte plainte gendarmerie Wakaam ma fekk fa benn kilifa juste moom mu ñëwaale ak femme bi di porter plainte ñu ne ma gendarme yi ne ma kii la ñu ne ma waaw ci saa si ñu yéegal ñu ci bureau adjudance ba ñu yéegalee ci bureau bi nag ñu waxtaan ak kilifa bi ñu waxtaan ak moom ba adjudant ne ma léegi lii mun nañ ko régler du dara convaincre quoi waaw daf ma convaincre ba ma bàyyi plainte bi ba ma retiré sama plainte mu ne ma dinaa ko régler jox ma numéro am ne ma woo ma léegi nag man ba ma ko ma toog Sénégal lu yàgg parce que dañ ma ne woon naa may le temps parce que xale bi perturbé na ak xeex bi parti patata léegi man ma woo ko ma toog Sénégal ma woo ko ba ba war a ñibbi Maroc parce que def naa fi un mois laa ñëwoon congé mais toog naa fi six mois presque ba may waaja a dellu Maroc ma woo ko ma ne ko ah maa ngi nii damay dellu Maroc mu ne ma je te rappelle ba tey ba suba rappelé wu ma numéro ma ngi nii moom moo ko jox ba tey ba suba joxuma woowu ma donc man ma dugg Maroc ba ma duggee Maroc ma toog waa ji daf ma bloqué WhatsApp nee na man su ma bëggee wax ak sama doom naa wax ak kan mooy kooku femme beneen femme bi moom nee na jabaru magam la loolu la moo déclaré mais ex jëkkër bi loolu sama ex jëkkër loolu la ma wax mu ne jabaru magam la mais keroog ba may xeex ak ci buntu kër gi ngir sama doom daf ma ne yow caga nga danga doon cagatu man dama mbindaanu ba ñu taq ma moom loolu la wax noonu moom dafa mbindaanu ba waa ji takk ko moom loolu la wax man prostituée laa ma ne ko yéen doomu ma ne ko yow doomu prostituée moo la jaral ngay xeex ci mbedd bi ak man xale bi man ba ma koy jur fekkee woo xamoon na ma ko juree léegi man ba ma ñibbee noonu Maroc ma toog Maroc jàpp sama njàmbur comme que mënumaa wax ak sama doom bugguma dugg tribunal di tàddeel sama bopp parce que dama am liggéeyu jàmbur liggéey boo xam ne mooy sama sutura mooy sama teraanga man ak sama njaboot ak sama famille léegi man ba ma ñibbee Maroc dama toog tabaski gis ko mu statut sama photo doom moom ku jigéen ki ma ne ko nangam taanal nga génnee sama foto doom parce que yaa ngi gis amoon numéro waaw dama amoon numéro parce que au début maag femme bi amuñu benn problème mais xam nga fan la ñu amee problème fa mu xeexee ak man ci buntu kër gi dóor ma ay bant empêché ma pour ma jël sama doom ànd ak moom école ok continué ko léegi mu statu ko ma bi parce que yow dafa mel ni danga may la may doole parce que moom la ñu jël moom ñoom mënuñoo xeex ak man mënuñoo xeex ak man directement donc la ñu jël def ko bouclier ndax xam naa moom mooy jabaru da koy nëbb bu teyee mu ne jabaru magam la bu subaa mu ne nunu bi la te nee na ma moom dafa mindaanu ba ñu takku ko donc man ba ma ba mu statee loolu envoyé ma message saaga ko envoyé yaayu message ma ne ko yow xam nga du jigéen nga xam nga lan mooy jur doom mais yaa ngi bàyyi sa doom di ko seetaan mu may empêché may gis sama doom di wax ak na man ma ne ko comme que lii la nag dinaa ñëw xeex xeex boo xam ne sama xarit la mu ne ko ne bu ñëwee kooku da doon def médiation benn kilifa la mu ne ko ne ko bu ñëwee Sénégal dinaa ko tëj kaso ndax saaga yu mu saaga sama yaay ak yooyu patati patata ma ne ko doom ne du ko gis nga dénk ko koo xam ne da doon xeex kon du ma jaar fu ñaaw kon yow yaa ma poussé ma def def lii ma def lépp dinaa ñëw Sénégal nag nga tëj ma kaso comme que Sénégal dëkk injustice la bu borom dëkk bi di jàpp di tëj citoyen bi bu ko neexee moom tamit day jàpp di tëj donc man dinaa ñëw yow nga tëj ma kaso donc man ba ma ñëwee dama toog ak ñaari kilifa ñu ne ma woo ko ma woo ko au parleur que salaamaaleykum man la yaayu doom bi mu ne ma ban doom ma ne ko mu coupé ma bloqué ma whatsapp mu bloqué ma appel normal bloqué ma whatsapp léegi nag man ma ne comme que loolu la léegi comme que affaire do affaire doole la léegi dañuy jaayante doole ba gendarmerie tëj ma yow yaa ma ne naa ñëw daal su ma ñëwee di nga ma tëj léegi man dinaa def loo xam ne yow di nga ma tëj mais bu boobaa na tribunal xam ni bu téyel woon sama doom ne du ma gis sama doom kon man duma dem ci immeuble ba di dajji buntu immeuble bi parce que dama dem ba foofu dama dem dama tudd turam mu ne ma wii ma ne ko génnal da newoon su ma ñëwee Sénégal da may tëj tey da ngay génn fii nga simmeeku taatu neen ma simmeeku taatu neen ñu xool kan moo am martu césarienne bi parce que lu ku xamul buur saay na buur def na nii ma jaar fu ñaaw taxaw ci immeuble bi ma ne ko ma fàttali ko benn histoire ma ne ko sa yaay dem na dix plus de dix ans ay njabootam ba mu ñëwee dafa gisaat ay doomam lan moo tax man ma war a tukki un an def ma sax deux ans première fois bi 2017 un an et quelque ma ñëw du gis sama doom du ma jël sama doom nga jël sama doom dénk ko koo xam ne kenn xamul sa jabar la kenn xamul sa jabaru mag la bu teyee mu ne nunu bi la bu subaa mu ne lii la ma ne ko di génn tey mu ne du génn ma jël ay xeer di dajji bunt bi ba may dajji buntu kër gi nag buntu kër gi mënul dajjee ko parce que dafa dëgër léegi mu ne waa immeuble bi ñoom dañoo def plainte collectif pour porter ma plainte pour bëgg ma tëj kaso kaso ragaluma ko man damaa ragal gendarmerie damaa ragal police waaye ragaluma gendarme ragaluma policier ragaluma tribunal parce que ay nit lañu monsieur le procureur balaa mu maa tëj kaso dina ma déglu bu ma dégloo bu chercher le pourquoi ma def lii yëpp yaakaar naa ne du jaar ak man kaso moom ku góor ki nga xam ne moo téye sama doom depuis 2017 di ma tongtongee di ma jaay doole moom la ñu war a jël ñu tëj ko kaso léegi ba loolu amee man damaa dem police centrale ma porté ma porté plainte police centrale ñu déglu ma tapé PV yi ñu convoqué ko mardi bi moom nit ñi woo nañ ko mu ne moom dem na police ba nee na yóbbu na xale bi police ba sax waaye li ma jaaxal normalement man su ma portee plainte ñu déglu ma déglu ko ñu ñaan ñëpp dañ ñoo war a woowaat ñu def confrontation mais loolu kenn defu ko am na ku ko woo mu ne ko ne ko bu tegee tànkam police centrale dañ koy tëj parce que sénégalais dañ ma woo ba may def direct Facebook sénégalais dañ ma woo ñu ne ma kilifa bu mag punkal punkalum policier moom lay toogal si géej bi chaque jour chaque jour si buntu police ba kay xëy na kooku la yaakaar moo tax mu am def lii ne waa ji nga xam ne yow yaa ma woowoon ne ma punkalum policier lay toogal si géej bi man turu punkalum policier bi rek laa soxla su ma soxlaa turu punkalum policier bi nga xam ne moom moo ko boot moo tax mu am fit di def injustice waaw man bu boobaa dinaa xam man nan laay defee kooku léegi beneen bu si topp man ñëw naa maa ngi fii dakaar damaa war a dem police centrale ne leen ah plainte bu ma fi plaintoon moom man déglu ngeen ma moom déglu moom déglu ngeen ko moom nee moom nee na xaw ma yóbbu nañu këyit bi ci procureur waaye man maa ngi dox ci dëkk tey Casamance laa nekkoon jaaree naa ci frontière bi policiers yi xool nañ sama carte d'identité waaye kenn téyeegu ma nag xam naa ni tôt ou tard nag bu ñu yégee ni maa ngi fii dinañ ma téye mais buñ ma téyee nag ci injustice du ma métti parce que fii dëkk injustice la lu waay neex def Sénégal bu amoon loi punkalum policier boobu ñu naan moo koy protéger moo koy am may fit ak xaw ma lan ak lan ak lan kooku moo koy njëkk a wax joxal kii doomam mu dem congé ñëw delloo si la waaye gis sama doom téye sama doom loolu du combat bi dama bëgg justice sénégalaise Sénégal si Sénégal bi xale bi amul mbokk ivoirien man aw ma mbokk ivoirienne moom moo dem Côte d'Ivoire déclaré fa nee ne moom milliardaire la ba lënkaloog ñag yi ñag yi def ko lañ koy def léegi moom na des ak ivoirien yi mais sama doom du teg tànkam Côte d'Ivoire. d'accord léegi xale bi fu mu nekk nii ñaata la. xale bi il a six novembre bii lay am set ans donc il a an ans et quelques donc te novembre moom dem na Côte d'Ivoire de man la bàyyil fii ak ñaari avocat sant bi ni bi mi ngi fii Sénégal. wóoruma parce que moom samay xarit bu ñu ko woo au début sama benn xarit bu ko woo xari dafay woo chefu gardien yi chefu gardien yi dem mu ne xale baa ngi Côte d'Ivoire loolu la njëkk a ñu woowaat ko mu ne xale baa ngi daara kër benn sëriñ ñu woowaat ko mu ne moom yóbbu na xale bi police ba policier gis xale bi li ma bëgg ñu jàppale ma si mooy sama doom ma gis ko jël sama doom congé sama congé mais comme que dañ ma xañ ma gis sama doom depuis 2017 kenn yaayam jógul ne ko jox ko doomam ngir àqu njuréelam bugguma yaayam téye sama doom femme boobu ñuy naan bu mu jege sama doom bu mu laal sama doom moom mi ngi entre Côte et Sénégal waaw kay euh, Chimère jox ñu ndaw si rek alaaji ñu continue na am ngoru bu nekkee Côte d'Ivoire mu yëkkati doom bi mu jox ma ko man ma téye sama doom waaye comme que nee na man damaa dof ndax wax yu may wax naan ragaluma police ak ragaluma gendarmerie nee ñu dañ ma bëgg a def manquant manquant national lañ ma bëgg a def bu ko defee sénégalais yi ne kii dafa dof dof la fi dëkkee si dëkk bi mais jigéen boo ko xañee mu téye doomam depuis 2017 ba tey naqar bi may dund ak jooyu xol bi may jooy sama doom bi sama àqu njureel bu ko juree parce que xale bi dañ naa ci moom loo xam ne dundalul sama doom ay moroomu góoram ñoo dundal xale bi na génnee sama doom ñu xool xale bi ndax ñoom dañoo bëgg a lekk xale bi xale bi ay noppam dañ koo jël ay bëñam dañ koo jël lu tax man warumaa gis sama doom nee na xale bi daf maa ragal xale bi daf maa bañ te moom mii di wax nii lii lañ ko def injustice bii mu may teg nii ma bañ a gis sama doom dañ koo tere mu gis doomam ay ati ati ati ati ati at mu xëy ne duma gis sama doom comme que xeex bi fu mu nekk nii fii la fii la yem man nag maa ngi wax nañ ma jox sama doom bis doom dugg ko d'Ivoire moom lañ ko def ñu def fo sama doom bu ko dara arrivé nañu xam ne état Sénégal moo bàyyi doomam comme d'habitude parce que ñoom ñooy sacrifier seen jeunesse ñoom ñun bu ñu amoon fii loo xam ne ñoom lañ bëgg du ñu génn Sénégal dem naan dañuy liggéey ay centre d'appel Maroc centre d'appel yaa ngi fii quatre-vingt mille lañ ñuy fay bu ñu demee Maroc ñu ñuy fay deux cent cinquante mille donc ñun su suñuy kilifa ñoom ñoo deful ñoom ñoo deful lu war ñoom ñoo caqat caqatee jeunesse bi ba jeunesse fii kenn desetu fi boo demee Maroc da ngay rus da ngay gis ay sénégalais yu sonn lu du ñu ñibbisi parce que dañuy naan li ñuy fay Maroc ñun amuñu ko Sénégal nous on le mois au mois maanaam da ngay fay ko weer nga dund si fay si sa kër dee say say waa kër mais sutura moo la fay téye condition yi ma nekkee woon fii ay moroomu góoram di dundal sama doom may sonn di toltolaan ci dëkk bi moo tax man ma dem nañu def ay enquêtes yu leer ñu xool ban période laa ko dénk sama doom. d'accord léegi moom dafa ne da nga abandonné sa doom. à deux ans te dafa ne dama abandonné xale bi dama ko abandonné xale bi à deux ans à deux kër gi ma liwee woon. borom kër gi dafa ma wàññi woon loca location bi ndax yërëm ma ndax mënumaa def dara mënumaa dem fenn ndax xale bi yaa ngi dégg donc ñooñu ñëpp waa Suprime waa Magic Land ñu ma doon gis may boot sama doom di ñëw liggéey si ak ñi nga xam ne ñoom ñoo doon ñoom ñoo ma doon dimbale ci xale bi ku si nekk di nga génn si léegi man li ma bëggoon a wax mooy xeex bi duma ma du ma ne naa damay woo ay avocat pour ñu ñëw xeexal ma ndax man dafa am ay politiciens yoo xam ne dama doon boot sama doom ànd ak xale bii may wax nii dama ko boot gungee leen ñu politique parce que aw ma woon ku ma téer sama doom moom mooy sama avocat parce que dama koo xeexal ba mu falu donc yaakaar naa ni tey man su ma amee xeex waruma ñëw toog rajo sax di wax ba ma defee direct Facebook ba ma bindee ci Facebook ne maa ngi dund injustice si la ñu waroon a génn mais comme que les politiques ne connaissent pas la valeur du teranga ils ne connaissent que la valeur de leurs intérêts falu toog fàtte man nag mooy sama avocat parce que dama koo fay ba pare fay naa ko zaahirement fay naa ko baatinment maanaam fay naa ko ci sama ñaq fay naa ko ci sama xaalis xam na la bu baax a baax a baax a baax a baax fu ma koy gisee ba koy wo ana numéro ba mu faloo laa ko gëj a teg bët man maa nekkoon délégué Maroc teguñu sama loxo un franc ma jël sama xaalis dangi dangi xaalis boobu nag bu ñu bëggul génn xeex xeexle ma nañ ma ko delloo man ma xeex sama xeex donc man maa ko siiwoo d'accord léegi léegi léegi waa ji nga xamante ne nii moom mooy sa ex jëkkër bi mhm. maanaam ana papam euh, histoire bi yëpp sa papa dem na ci moom pour waxtaan ak moom papa yàlla def na ni moom décédé na waaye xam naa ni jamono ji bu fi nekkoon man du ma jooy gis sama doom bu fi papa nekkoon du ma jooy di gis sama doom duma ko jooy parce que papam nit ku baax la woon nitu yàlla la woon dafa bëggoon a defar moo tax mu ne ma bul dem tribunal parce que man ba ma ñibbisee dama bëggoon a dem jëli huissier mu constaté qu'on m'empêche d'entrer dans le domicile conjugal mu ne ma bul dem toogal dama la ko ñaan da doon defar mu ne ma toogal xam naa sama doom dinaa wax ak moom papam moo wax ak moom ba mu may yóndee chaque weer cinquante mille mais yaayam yaayam moo ma bëggul woon parce que yaayam avant waa ji di ma takk dafa jóge ba Amérique dem ba France taaj doom bi fekk man maa ngi wax ak doom ji WhatsApp doom ji coupé wul mu teg mu wax ak doom ji ba pare jóg dem doom ji ne ma dénk sama yaay lu mu wax nee na bu ma la takk ndax yow baaxoo dangaa réew te dangaa am ay doom xaw ma lan ak lan ak lan ay frère taaj nañ ko ci restaurant ne ko bu ma takk ay mbokkam ne ko bu ma takk mu ne ma dama lay takk parce que seetlu naa suñuy baax na su la takkaatee dinaa amaat. parce que boobu takkaatee dala takkoon. déedéet nee moom bu ma bu ma takkee man dina amaat parce que moom dafa nekkoon ay jafe-jafe ba muy ñëw Sénégal suñu kër la dëkkoon un mois ñu soog a di dem jël appartement fële wakaam ñu daal di jël appartement wakaam nekk fa xaw ma 6 mois xaw ma 8 mois. mu jënd benn appartement. apartement bi dafa joxe avance vingt millions yi mu joxe moom moo ko moom. mais li des ñun ñoo doon xëyandoo poor di wàccandoo port chaque weer muy dugal un million cinq cent location vente la musuma fay salaire. déclaré nag nag lu ne nee na man moom dafa def ay enquête ñu ne ko man Maroc prostitution laa fa nekkee woon. moo tax moom buggul ma jege sama doom mais dama bëgg ma dama dama ko bëgg xam nga nit ku réer la. dama ko bëgg a xamal ni même la prostituée. a le droit de voir son enfant man prostituée nationale et internationale diplômée de l'école de la prostitution j'ai le droit de voir mon enfant parce que man maa ko jur parce que ay waa këram loolu lañu wax man ne leen ah man de bàyyiwuma fi onze doom dem Amérique sëy faak américain dégg ni sama doom takk na yaay ji daw ñëw ci biir kër gi bëgg fee toog parce que gis na ni doom jaa ngi commencé amaat ma ne ko fii doo fi toog comme que yow sa doom ba may takk da ne woon sa doom. dans tout yow bi nga xamee ni si ay mbokkam bëgguñu la la moo tax nga dugg ci sëy bi. ba ci ah, mais man sëyuma ak mbokkam. ak ay mbokkam moom laa doon sëyal. ñoom lu ñu yaakaar mooy sëy da ngay sëy ak mbokk yi man mbokk yi dañ daan ñëw sama kër mais am na si ñoo xam ne amuñu woon fitu ñëw si kër gi parce que dañoo wax ci suuf waa ji ëlbatiku ñëw nettali ma lépp ba ma ko waa ji nettalee nag ba pare ma ne leen yéen da yéen a ko may waaye comme que dangeen yaakaaroon ni da ngeen ma ko may pour mu parce que ay ay ay ñoo ma ko présenté waaye présentation bi yëpp intérêt la woon xam naa pour waa ji di ma jox man ma leen di jox far yàlla ñu ñëw yàlla ubbil ñu xéewal yaay ji li mu doon li mu li mu doon xeex mooy comme que doom ji commencé na commencé na amaat xaalis doom ji jënd na appartement 37 millions mu ne day ñëw tas sëy bi lu ne def na ko ci kër gi samay ñaari serviette jël na ko yóbbu ci sëriñ butéelu crédit da nga koy ubbi fekk ñu dajj ko nga gis si biir mu ñuul kub ak ay saafara waaye dafa def ba defa def ba sonn mënuñu maa jàpp tey nag lii lii nekkatul naturel. dafa rax mystique. bu doon moom ku góor ki wér na kon xam naa ni su ma ñëwee dëkkuma Sénégal bugguma dëkk Sénégal bugguma dëkk Sénégal parce que Sénégal ñun mérité wul am jeunesse boo xam ne xëy na dañ koy fay foofu 400000 wala 500000 wala 600 ñun buñ ñu wanee buñ la buñ la wanee suñuy bulletin de salaire marocain yi ñoo ñu boot uuf ñu roggante ñu jox ñu biberon lu ñu marokin yi mënal Sénégal mënaluñ ko centre d'appel yaa ngi fii 80000 la ñuy fay man du ma toog fii ñu may fay 80000 ma xam ne su ma demee fee dinaa fa am 400000 500000 ma fay toog loolu du ko def Maroc laa dëkk kii laa fa yor nu mu tudd sax quatre séjours laa fa yor te bis bu ma demee ba ñu jox ma samay këyit ma delloo leen seen passeport seen extrait de naissance ak seen lépp ma delloo leen ko waaw parce que injustice bu fi am moo tax dama leen koy delloo léegi nag yéen da ngeen di dem Maroc ngeen dem ngeen def enquête ngeen xool sénégalais yi nan lañ fa nekkee moo tax ma ne ko bu borom dëkk bi di jàpp di tëj citoyen bi day am fitne la ñëwal ma tëj la merci madame yàlla yàlla doon jàmm ci réew mi alaaji yàlla nu yàlla sutura yàlla nu yàlla jàppale te yàlla nu yàlla aar di leen jox kon dig daje suba it Cociel di kuréel bi nguuru Sénégal jox ndigal la ngir saytu installation yi moo leen doon may seen émission tës Expresso bi leen indil dil bi ci étoile onze onze jazz moo leen doon may seen émission tës Jolof Chicken moo leen doon may seen émission tës